nga xamante ni moom le président de la république jël jagleel ko ndaw ñi muy programme bi mu tuddee xëyu ndaw ñi programme boobu nag euh, ku nekk xam na ni gouvernement bi yëpp la concerné ndax jeunesse moo tëddee noonu dafa transversal comme niñ koy waxee tey ministère boo dugg tey di nga fa fekk programme bi nga xamante ni nii concerne na ndaw ñi daanaka kon euh, bu fekkee ni tey dañoo ñëw jàkkaarloog yéen ministère de la jeunesse liñ ci nga xamante ni moo ñu ci concerné directement lay wax parce que wax naa ko sànq jeunesse dafa transversale on travaille en parfaite collégialité donc euh, euh, li ñu concerné directement mooy recruter euh, mooy trois projets yi d'abord mooy recrutement wu 500 mooy juróomi téeméeri ndaw ñi nga xamante ni ni ay euh, animateurs socio éducatifs nañ animateur socio éducatif nag boo ko déggee euh, mën nañ ko tuddee technicien de jeunesse koo xamante ni nii dafay déployer wu à la nekk relais entre ndaw ñi ak euh, structure yi nga xamante ni nii Euh, infrastructure yi nga xam ne président de la république euh, teg na ko fi ak yi nga xam ne fekk nañ ko fi pour ndaw ñi lu demee ni que maison de la jeunesse yi nga xamante ni dañ koy construire dans les quarante cinq départements ak CEDEPS yi nga xam ni dëgg la am nañu cinquante ans mais ñi ngi nekk di réfectionner yenn yi espace jeune ak euh, foyer des jeunes yi nga xamante ni ñi ngi ci localité yi donc. agent bi nga xamante ne nii moom nañ tuddee animateur socio-éducatif loolu mooy liggéeyam mais également dina am liggéey sensibilisation parce que tey dafa am problématique centrale bi nga xamante ni nii constaté nañ ko ñun ñëpp ci ndaw ñi mooy euh, l'éducation sociale civique ak citoyenne problème la bu exister ci ndaw ñi président de la République dans son programme PSE dafa ne woon bu bu bu tàmbalee mbànnaam dina teg li ñuy wax maison de la jeunesse et de la citoyenneté pour permettre ndaw ñi nga xamante ni ñi ngi ci localité yooyu ñu éclore le talent dans les domaines de l'art de la culture de la citoyenneté mais également de la bonne gouvernance donc maison yooyu ñi ngi nekk di ko teg lancé nañ ko ñi ngi koy teg dans tous les départements donc buñ ci doolee recrutement animateurs socio éducatifs yooyu dina permettre ndaw ñi euh, li nga xamante ni moom nañuy wax promotion de la citoyenneté dina dinañ ko mottali foofu beneen bi mooy recrutement 1000 volontaires du service civique national 1000 volontaires yooyu muy junni euh, dañ leen di recruter ci département yépp te recrutement bi euh, service civique national dafa am ay particularités loolu moo tax service bi ci boppam mooy recruter te li am solo te nekk nouveauté ci loolu mooy président de la république dafa décider renforcer service civique national ci li nga xam ne mooy demee ni que moyen mais également euh, ci lim bi nga xamante ni volontaires yi ñu fa lim leen di renforcer mooy d'abord Euh, juridiquement service civique national dafay mm, dafay nekk direction bu mag boo xamante ne nii day doon service civique national euh, promotion du volontariat lay def ak service civique national mu nekk direction général du volontariat et du service civique national loolu nag bu ñu ko tegee ah président dafa bëgg a gën a ñoŋal euh, citoyenneté ak civisme ndaw ñi permettre ndaw ñi mu gën a am culture participation citoyenne loolu nag du nekk la nga xamante ne nii euh, ci benn bis rek nañ koy nañ koy nañ koy construire processus la boo xamante ne nii ça demande la participation de tous les jeunes mais également de toute la population sénégalaise loolu moo tax euh, dinañ lancer recrutement yi plateforme bi pare na donc ñu ngi lancer recrutement yi au niveau du service civique national mais également ce qui est important mooy pécule yi nga xamante ni dañ ko doon jox ndaw ñi ci service civique national pécule yooyu dañ koy yokk donc ndaw bi dina am possibilité servir réewam mais également sur le plan socio-économique ñoom dañ nañu am euh, li nga xamante ne ni moom leen di cër moom nañ leen di cërëree comme payoor à la fin du mois pécule yooyu dañ koy yokk daanaka président de la république daf ko tripler Euh, bu ma ñëwee ci beneen fànn bi ñetteel bi nga xamante ne moo concerne ministère de la jeunesse mooy euh, li nga xamante ne ANPEJ war na ko def rôle bi nga xam ne war na ko jouer ci guichet unique yooyu ci biir pôle emploi yi euh, rôle bi mooy ANPEJ daanaka mooy vitrine bi ku ñëw ci moom ngay njëkk a yam plateforme bi nga xamante ne ni moom la ñuy utiliser ci guichet unique yooyu. ANPEJ moo ko détenir am nañu ko bu yàgg ñu ngi ci doon liggéey ak Union européenne ak Pôle emploi France permettre nañu am plateforme boo xamante ni plateforme bu performante la boo xam ni ndaw bi bu ñëwee dinañ mën a jël en compte li nga xamante ne ni mooy demande demande am en matière de euh, d'emploi de de de financement ak formation professionnelle loolu nag dañ ciy liggéey comme ni ko ministre bi wax ministre de l'emploi waxee sànq dañ ciy liggéey ak yeneen structure yi mel ni DER nga xamante ni moom itam moom la président décidé ñu nekk guichet unique boo xamante ni mooy financer ak formation professionnel ak 3FPT FONGIP donc structure yooyu yëpp euh, lii ku ko jeune bi nga xamante ni moo fa soxla dara ki muy njëkk amal affaire mooy guichet ANPEJ donc euh, ADIE seen liggéey mooy xajal ñu seen espace yooyu ñu tuddee smart service euh, jox ñu li nga xamante ni mooy moyen sur le plan digital yi nga xam ne moom nañu soxla mais également héberger ñu te espace euh, espace yooyu espace yu am solo la yoo xam ne tabax nañ ko ci anam yu am solo donc foofu nañuy déployer wu euh, laaj nañ ma ci li nga xamante ni mooy recrutement yi ba xam ndaw ñi nga xamante ni nii dañoo am diplôme jël nañ leen en compte ci 65 000 yi jël nañ leen bu baax en compte mais également convention état employeur nga xamante ni nii euh, dafa séq gouvernement bi ak euh, secteur privé bi euh, loolu président non seulement dafa yokk enveloppe bi nga xamante ni moom lañ leen jox mais également euh, dañ ko ubbi ci secteur yi nga xamante ni mooy agriculture ak agrobusiness donc dañoo renégocier convention boobu convention boobu ndaw bi am diplôme dina am possibilité ñu recruter ko foofu ci biir entreprise leneen li mooy am na ci profil yoo xamante ni nii dafa laaj diplôme mooy recrutement bu mel ni animateur socio-éducatif mais également structure yi nga xamante ni dañuy déployer wu ci guichet unique yi yooyu tamit euh, dañuy recruter parce que tey ANPEJ avant da doon fonctionner en pôle régional ci déploiement mais euh, léegi dañuy dem sur le plan départemental donc il nous faut des managers yoo nga xamante ni ñooy déployé wu ñu ngi ci loolu parce que président décidé na renforcer ñu pour que ñu am moyen de recruter DER également dina def même chose ak euh, euh, FONGIP ak 3FPT donc dina am yeneen recrutement en dehors de ça 5000 yi nga xamante ne ñii ñoo dem di jàngale mooy jàngalekat yi ñu recruter ñooñu am na tamit ay diplômes donc les jeunes diplômés globalement jël nañ leen en compte ci plan de recrutement bi euh, beneen question bi ñu ma posé mooy euh, ba xam recrutement bi du am problème ndax euh, lan moo ñuy garantir ni dina am transparence d'abord Euh, li ma wax sànq mooy transparence bi président de la république exigence la ñu ko defal mais également euh, li ñuy wax territorialisation maanaam yaatal li nga xam ni mooy recrutement yi ba ci niveau départemental ak communal loolu euh, may ñu ñu def naka sudul noonu te boo demee ba ci base bi les acteurs à la base moom tamit dañ leen a associé lu mel ni conseil départemental de la jeunesse yu mel ni association de jeunes préfet wala euh, wala gouverneur au niveau régional ñoom ñooy jiitee recrutement yooyu donc amul benn njuñ njaaj bu fi am wala loo xamante ni day lëndëmal xel yi bañ nañ ko ba ku wax waxu recrutement dañu naan la demal d'abord inscrire ci plateforme yi wala nga dem au niveau de la base dem inscrire bu ñu paree lépp nañuy publier waat en toute transparence parce que ñun euh, récemment vivre nañ l'expérience avec euh, le PRODAC nga xamante ni ni euh, da doon recruter 400 jeunes yoo xam ni c'est pour un camp d'immersion plateforme nañu ubbi bi ñu ubbee plateforme bi 400 jeunes nañu soxla woon on a eu 9000 inscrits donc ci 9000 yooyu par rapport ak profil yi nga xamante ni demandé nañ ko ci ñu recruter ba ñu paree on a publié la liste en toute transparence donc loolu nañuy wéyal ci recrutement yi nga xamante ni ni moom nañuy def euh, par rapport ak 65000 yi leneen li mooy euh, la loi sur le volontariat wax na ko sànq adopté nañ ko en conseil des ministre vote bi moo des au niveau de l' assemblée nationale et je pense que bientôt dinañ convoqué ñu voté loi bi foofu buñ ko voté ba pare nag application bi moo moo mooy mooy des parce que euh, président de la république li ñuy wax service civique national dafa décider renforcer ko. Euh, sur le plan financier ak euh, sur le plan juridique loolu moo waral tey statut service civique national dafay changer day nekk direction générale du volontariat ak service civique national loolu nag dinañu permettre non seulement yenn conditionnalité yi nga xamante ni recrutement yi am ou mobilisation yi yi nga xamante ni moom la service civique di def ñu alléger ko un peu déjà dinañ ko ubbi ba quarante ans mais également yenn restrictions yi nga xamante ni amoon nañ ci dinañ ko wàññi ak euh, aspect volontariat bi nga xamante ni dañ koy jël en compte ci recrutement yooyu donc service civique national dina recruter 1000 volontaires communautaire dina changer tamit statut nekk direction générale de du volontariat et du service civique national représentativité euh, euh conseil national de la jeunesse dëgg la conseil national de la jeunesse euh, mandam jeex na mais ku nekk dégg na keroog président de la république non seulement renforcé na li ñuy wax subvention bi nga xam ni jagleeloon nañ ko conseil national de la jeunesse mais également dafa décider euh, li ñuy wax dafa dafa demander au conseil national de la jeunesse ñu réformer réformer bi bokk na ci yaatal gën a ubbeeku nit ñi jeunes yi gën a gis seen bopp ci conseil bi loolu nag ñun ñu ngi ciy dem. mais du tee nag li nga xamante ni nii moo ni këtt ni jonn li li teew si suñu kanam dañ ciy liggéey conseil national de la jeunesse ba nga xamante ni dem nañ renouvellement ba beneen équipe ñëw li teew mooy recrutement yi dañ leen ciy associé mais associé leen ci ne veut pas dire que ni euh, ndaw bi du ci gis boppam